ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaax dellu rek di leen balaax ñu ngi fii nag ci dëkk bi nga xam ne ni moom lañ tuddee Daaru Muxti di dëkk boo xam ne nii maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru moo ko sañcoon ci ndigalu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci at mi di 1913 ginnaaw bu maam Ceerno nekkee woon ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor ci ndigalul Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim Sëriñ Tuubaa yónni Sëriñ Amsatu Jaxate mu yónni ab taalibeem ngir mu wax maam Thierno na ko jógee na jóge foofu nga xam ne moom mooy Mbàkke Kajoor te dem sanc ab dëkk te bu ko sancee ba pare nag mu tuddee ko Daarul Moxti Daaru Moxti googu nag maam Thierno sanc ko ci atum 1913 mu toll ci 40 kilomètres 40 kilomètres yooyu nag ginnaaw bu ko goree génne na ci nag ay dëkk dëkk yoo xam ne ñu ngi ci biir 40 kilomètres yi yenn yi itam Serigne Touba Cheikhoul Khadim moo ko sàkku ci moom mu jox ko ci lenn ci jàmbaareem na yi nga xam ne nii ñoom ñoo wëroon ki nga xam ne nii moom mooy seexul xaddiim ñu man cee ràññee sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi sëriñ Mor Absolo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii ci biir 40 kilomètres sëriñ maam Thierno yi sëriñ Touba sàkku na ci maam Thierno mu jox leen ci suuf ñoom te ñu mën cee am suuf dëkk bi nag di Daaru Muxti wéy di dox ci atum 1913 ba jamono jii nga xam ne nii moom mooy 2024. histoire maam Thierno Ibrahima faati Mbacké Ndaamal Daaru nag mën nañoo jàpp ne rakki Serigne Touba Seexul Xaddiim la Poroxaan la feeña jamono doomi soxna Faty Issa Diop la ak Maam Mor Anta Sali Mbacké Seexul Xaddiim fukki at la ko magee mu feeña jamono ci Poroxaan lu bari itam ci njàngam Seexul Xaddiim moo ko defal Seexul Xaddiim moo ko tarbiya Seexul Xaddiim moo ko yar Seexul Xaddiim itam moo ko joxoon ndigal muy jàngale seexul xaddim itam bi muy dem ci géej gi moo sak woon ci rakkoon maam nu Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru dénk ko njaboot gi loolu itam maam Thierno def ci lu am solo ci ndénkaane boobu nga xam ne ni seexul xaddim defoon na ko ko ci atum 1895 bi seexul xaddim ñibbisee nag ci atum 1902 ca fukki fan yi ak juróom ci weeru baraxlun di bis ne tey la seexul xaddim nag waxoon ne na ko fekk ndar ñoom ñaar ñu dajee ginnaaw bu seexul xadim wàccee ci 11 novembre dëppoog mu juróom-ñeenti fan ci weeru baraxlu ci atum 1902 woon ndar mu yëg na seexul xadim ma nga fa seexul xadim sàkku itam ci Cheikh Issa Diène ginnaaw bu mu ko ziaree ba pare xamal ko ne na dellu daaru marnaan ca bawal bu demee mu wax euh, maam Thierno mi rakkam mu fekk ko ndar ndax moom seexul xadim ndar la jëm booba itam mu di ko xamal ne saa fa demee buy ñëw ndar itam na ànd ak lenn ci njaboot goo xam ne ñu mën nañ koo ràññee ne Seexul Xadim bëggoon na leen a teg bët muy soxna Astou Mbacke Kajoor doomam sëriñ Omar mbakke di doomi baayam sëriñ Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di doomi boppam mu dul Moustapha Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ci 1902 boobu ci ndaje moom ci fukki fan ak juróom ci weeru barax la googu itam ci la Seexul Xadim njëkk a gisee ab sëtam muy soxna Faati Madoune Penda Diop loolu itam nekk itam mbégte dégg ngeen bu baax a baax ni ko ñu bari waxee na bisu keroog ñoom ñaar bi ñu gisee mook Seexul Xadiim kenn ku ne tuur nga ay xéewal ngir bég ci sa moroom toog nga itam lu yàgg a yàgg munoo wax ak sa moroom ba alxuraan la Seexul Xadiim mujj a jàng ngir doxalee diggante seytaane euh, di ngir doxalee seytaane ngir mu bañ a dugg ci digganteem ak rakkam maam Thierno Ibrahima Fatim Mbàkke Ndaama Daaru bis boobu itam mooy fukki fan ak juróom nag ci weeru baraxlu ginnaaw bi nga xam ne nii ki nga xam ne nii moom mooy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké Ndaamal Daaru euh, màggaluñ ko woon ci bis boobu ndax itam bi nga xam ne nii génn na àdduna ci euh, fukk ci fukki fan ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu yi nga xam ne nii ci la génn àdduna njabootam ci lañ ko doon màggalal waaye Cheikh Mamadou Fadal bi mu toogee xalifa ci atum 1954 la sàkku nag ci Serigne a Awa Balla ñu jëlee ko ci bis boobu nga xam ne nii ci la ñuy fàttaliku maam Thierno ci làqoom yóbbu ko nag ci bis bi nga xam ne nii ci la gisee woon ak Seexul Xadiim muy mbégte muy fukki fan a juróom ci weer wi nga xam ne nii moom mooy barax la boobaak léegi nag ñu koy màggal ci taxawaayu njabootam ci nga xam ne nii ñoom ñoo fi bàyyi mu yàq xalifaam bu njëkk di sëriñ Modou Awa Balla Mbacké di xalifaam bu njëkk di moo Modou Awa Balla Mbacké ak ki nga xam ne ni moom moo ci topp di sëriñ Abdoul Khoudous Mbacké mi nga xam ne nii moom mooy ñaareelu xalifa maam no Ibrahima Faty Bakke Ndaamal Daaru ak ki nga xam ne nii moom mooy itam ñetteelu xalifaam di sëriñ Cheikh Khady Mbakke ñeenteelu xalifaam di sëriñ Abbas Mbakke ba ci juróomeelu xalifaam bi nga xam ne moom moo fi nekk jamono ji di ki nga xam ne mii moom mooy euh, sëriñ Bassirou mbake Anta Ñang kon taxawaay boobu itam képp koo xam ne nii wuutu nga maam bis bii bu ñëwee rek di fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu da ngay taxawaay bu yaatu. ngir fàttaliku dajab Serigne Touba ak maam Thierno ci ndigal loolu nga xam ne ni ñaareelu xalifa Seexul Xadiim moo ko joxe ndigal muy euh, Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké Daaru Muxti nag mook Touba sorewuñ ñenn ñu wax nañ ne 23 kilomètres la am na nañu dem ba vingt 24 am nañu dem ba 25 waaye daal li am solo ba am solo mooy dëkk la boo xam ne nii dëkkub cosaan la ndax bi ko Seexul Xadiim joxe ndigal maam Thierno ngir mu sanc ko xamal na ko ne daal dëkk boobu saa boo ko sancee lépp loo xam ne amul Daaru Muxti dama ko amul waaye lépp loo xam ne war naa am daaru muxti jortal ne dëkk boobu dana fa am lépp loo xam ne itam lu ma am la suñ ko fa ñaanee loolu itam dëkk ba dana ko def moo tax itam na dëkk bi itam yayoo ko moo waral itam bi Touba amee euh, forage ci atum 1948 ñaareelu xalifa Seexul Xadim di Seex Mamadul Faadal Mbàkke wax na itam ñaareelu dëkk yoonu murid bi war a am forage daarul muxti la mooy tax ci atum 1949 daarul muxti am forage am bi ñuy wax ne itam dañuy defar ay godron muy ay tëli bi nga xam ne ni moom Mamadou Fadal sàkku na ci route nationale numéro 3 ñu jëlee ko cees indi ko fi nga xam ne ni moom mooy Touba dafa sàkkuwaat fi mu ci ab tëli ñu jëlee ko Kébémer indi ko Touba ngir mu jaar ci dëkk bi nga xam ne moom mooy Daarul Muxti loolu itam nekkaat beneen taxawaay boo xam ne ni Cheikh Mamadou Fadal def lépp loo xam ne nii lu lu waral diggante Touba ak Daarul Muxti itam ami relation loolu itam Cheikh Mamadou Fadal Mbacké def na ko ci xilaaf ak Cheikh Moudou Moustapha itam moom daana def daanaka weer wu jot mu ñëw gana si Cheikh Awa Balla Mbacke di fi ñëw di fi nemmeeku di ziare si njaboot gi di wax ne itam lépp lu ñu am di baay bàyyi ceerno la moo tax Cheikh Moudou Moustapha tudde na ko doom Cheikh Mamadou Fadal tudde na ko doom geneen njabootu Cheikhul Khadim bi itam noonu la ñu fonkee dëkk bii nga xam ne moom mooy Daarul Muxti sëriñ Abdou Lahad Mbacke naka noonu itam bi mu toogee xalifa sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader sëriñ Touba Cheikh ba ci sëti sëriñ Touba yi muy sëriñ Cheikh Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke màggal gi mu njëkk toog xalifa Cheikhul Khadim ñëw na fekk si màggal gi sëriñ Cheikh Sidul Mokhtar moom kër la fi amoon di ko amal di ko fi def sëriñ mun itam lépp loo xam ne yitte njabootu borom daaru la loolu itam yitteem la daaru itam nag soo fi ñëwee ci côté administration mën nañoo wax ne jógee na ci village dem ci ab commune rurale jóge ci commune rurale ba jamono ji ab arrondissement la li ñu tuddee ci wàllu wér gu yaram itam poste de santé am na fi wala li nga xam ne moom mooy district sanitaire am na fi bu doonee ci côté sécurité yi mën nañoo wax ne brigade bu gendarmerie national am na fi. bu fekkee itam ci côté administration ab sous préfecture am na fi ci dëkk bi bu fekkee ne itam ci côté joxe. ay doomam ci administration Sénégal ngir ñu liggéey fi mën nañoo wax ne daarul muxti ci wolof mi ngi tekki këru joxe gi moo tax itam lépp loo xam ne ne administration da koy def daarul muxti joxe na ci doomam moo xam ambassadeur moo xam ministre moo xam président moo sax moo xam li nga xam ne nii moom mooy Euh, ci wàllu takk der moo xam ay chef de parti lu mu mën di doon rek am na benn doomu daaru muxti boo xam ne daaru muxti jii la feeñe jamono te suñ borom dogal na loolee itam ci dëkk bi nga xam ne moom daaru muxti ni muy tekk ci wolof itam suñ borom jox ko cër bu toll noonu itam mu am ko kon loolu itam nekk itam lu am solo bu doon itam ci côté jaamu suñ borom muy diine daaru muxti itam nag am na ci taxawaay bu yaatoo yaatoo ndax jumaa ji nga xam ne moom moo ñu féete ginnaaw itam njabootam gi ñoom ñoo ko fi def muy jumaa joo xam ne ay milliards milliards lañ ci def te loolu itam am na fi kër borom daaru am na fi ci côté li nga xam ne moom mooy développement bu doonee ci côté administrat ci li nga xam ne nii moom mooy wàllu yoon ak yeneen yi nga xam ne moom moo ko soxal itam mën nañoo wax ne daaru itam mbedd yu mag yu baree baree baree bari am na godron boo xam ne ni ma nga fa eh, ci yenn yi bu doonee courant itam mën nañoo jort ne dëkk bi bari na foo xam ne nii itam am na courant mi mu ngi wéy di dem bu doonee itam ci côté li nga xam ne nii moom mooy dëkk buy màgg itam ni ñu ko waxee quartier yi nga xam ne ñoom ñoo am daaru ëpp na juróom ñaari quartier te loolu itam li ko waral mooy màggaayu daaru muxti ni muy màggee moom moo waral itam fépp foo xam ne nii daaru muxti ci côté bu ne itam ma ngi fay màgg ma fenn xeetu màggaay goo xam ne nii lu jaaxal ñu baree bari la am na itam marché boo xam ne nii mi ngi dox ci wàllu commerce di jënd ak njaay mooy marché boo xam ne itam bokk na ci marché yi nga xam ne nii ñoom ñoo gën a rëy ci département bu Kébémer bi nga xam ne nii ci la Daarul Muxti bootu bu doonee itam ci wàllu li nga xam ne nii moom mooy euh, lépp loo xam ne nii dafa jëm ci wàllu communication itam Daarul Muxti am na télévision bu ñu tëglee bu ñu tuddee Yëgle TV waaye am na itam ab rajo bu ñu tuddee daaru Muxti FM ci côté li nga xam ne ñu tim moom mooy wàllu solidarité moo xam ay xeetu daayira ak yeneen ak yeneen da ngay seetlu ne itam Daaru Muxti def na ci liggéey bu am solo loo xam ne ni itam mi ngi koy ñu ngi koy amal ci dëkk bi nga xam ne moom mooy Daaru Muxti ci taxawaay bu yaatoo yaatu bu doonee ci côté li nga xam ne nii moom mooy économie ndax bari na ay économie ay ay économie yoo xam ne nii fii lañ dëkk ci Daaru Muxti El Hadji Njaga Njaay nga xam ne mooy kaar yi di daw ñu koy wax Njaga Njaay tey jii dëkk bii la cosaanoo ci fi nga xam ne nii moom mooy Daarul Muxti loolu mu nekk taxawaay bu am solo tey boo tuddee ñeneen ci njabootu maam Thierno da ngay yëg ne ñoom itam ab kilifa la yoo xam ne nii wala taxawaay la yoo xam ne nii am la ci li nga xam ni moom mooy taxawaay bi nga xam ne moom mooy am ci Daaru Muxti kon Daaru Muxti ci atum 1955 ba nëgëni ñu ngi koy fàttaliku ci fukki fanak ak juróom ci weeru baraxlu di bis bi nga xam ne nii ci la Serigne Touba Seexul Xaddiim gise woon ak rakkam maam Thierno Ibrahima Fall bu doonee itam ci côté ay bërëbu ziar mën nañoo wax ne bërëbu ziar ñu ngi fi muy béyti fi nga xam ne fi la maam Thierno daa dugge xal wi bi mu génnee àdduna foofu lañ ko denc foofu sax la génnee àdduna ñu ngi nii den ñun li nga xam ne ni moom mooy ak njaboot tamit bari na ci ñoo xam ne nii itam ay niti suñ borom lañ daraje yonent yi wala darajey sangaba yi itam la leen tudde ñoom ñëpp itam ñi ngi fi kon daal daarul muxti nekk loo xam ne ni taxawaay bu am solo la ci euh, dëkk bi nga xam ne ni wala ci tariixa bi nga xam ne moom mooy yoonu murit ba tax na tey boo tuddee Touba rek say xal day dem ci dëkk bii di daarul muxti kon lépp loo xam ne nii daal Serigne Touba waxoon na ne maam Ceero demal daaru muxti nga toog fa te saa boo ma ko ñaanee bu loo amoo ko rek xamal na loola dama koo amul loola itam moo waral njaboot gi jëm ko toog fa toog fi nekk fii itam di jaamu suñ borom. kon jortoon nañ ne daal lii la lenn la ci am njàngat buñ doon leen doon amal fii ci li nga xam ne moom moo wër pencum daarul muxti fi nga xam ne fi la jumaa ji nekk ak kër gi nga xam ne moo ne woon kër maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke Ndaamal Daaru ca cosaan te loola itam nekk loo xam ne ni taxawaay bu am solo boo xam ne ni itam ñu ngi koy sante bu baax a baax njaboot gi kon ñu ngi sant bu baax site internet yi ñu àndaloon ah, di Touba Pro Mouhaïbou TV Kayor TV ak xam Xamle TV Abdourahmane Lo la woon